si parce que euh, je considère que nit ñi mën nañoo wute lu ñu xalaat. ba mhm. pare respectante. oui je suis parfaitement parce que démocratie mooy loolu. taxaw naa nit ñi dañuy fenn. loolu tegginuwul. Mhm. yaruwul. ba pare dafa contrasté ak li nga njëkk def. Mhm. boo toogee ci suuf sumbi say dàll. tudd nit ku baax. ba pare jóg même pas deux minutes ngay saaga. non loolu dafa contrasté. plus pur maanaam ah, ah, la nga wax. wax na plus pur la nga wax. la nga wane dafa wuute ak li nga jëf. kii il a dit plus pur que am solo mooy il a dit plus pur que li nous on bi ngay wax daggu la. on a les instruments yow Babacar Dione li ngeen wax ci Alpha Condé li ngeen wax ci gine on a toutes les instruments. xam nga dégg nañ la Konde s'il te plaît dégg la xam nga booy gérer émission bi aussi. waa ji aussi mënul wax n'importe comment. li ngay c'est pas du n'importe quoi li nga nekk di ko wax naa ko. man bu ngeen ma ñaanee ma noppi mais. waaw waaw ñaanee waaw léegi wuy ma ñaan waaw wuy ma. ndax kii. Konde Konde laa ko mën a nuyoo mais bu ñu dajoon si mbedd bi du ma ko nuyu. waaw Freyra wuy ma Freyra wuy ma du ma ko nuyu. Konde Konde. Konde s'il te plaît. waaw s'il te plaît. waaw respecté nit yi aussi. non dinaa respecté waaw mais bàyyi ko mu wax mënoo ko. non mën naa ko bàyyi mu wax. waaw mais non da nga ko war a bàyyi mu wax. ñii dañoo wax ba géex. waaw mais non non non Konde wax nañu ba géex si élection bi lu nekk wax nañu ko Konde Konde Konde tuuti grandeur s'il te plaît. tey dañ ma doon dawa mais maa ngi leen di sant yow yéen waa TFM ndax yéen ma invité fi ma mën a wax. mais yeneen télévision dañ ma doon taw. non du du xoolal démocratie dem naa seen TV dem naa seen TV. non non c'est eh, pas kii bu dee kii la moom jarul may jarul may def débat. s'il te plaît xoolal c'est pas la peine de citer ah, ay télé wala quoi que ce soit dinaa ko bàyyi mu ah, wax tey ay télé léegi ñu déglu tey ah def lu ñu ah. métti. waaw mais na la mais xoolal wax nga ko. jeex na s'il ok s'il te oui bëggu ñu def remake euh, bee passé xam nga li tax ma wolof fi sax xoolal c' était vraiment pour faire la paix parce que bee passé même man je m'étais énervé contre yow du woon yoon xam nga pour wane ni que se est normalisé et y' a aucun problème moo tax. moo la d' accord. waaw d' mais il faut que ah, léegi léegi kon déglu ko s' il te plaît. waaw dinaa ko déglu te bu ko dagg. te bu ko dagg de. waaw bu ko dagg mais bu loo xam ne rek man Condé parce que Condé ça ne marche pas comme ça yow tamit jour bi muy toog di wax ci sama président boobu mi ngi ma fekk Gambie maa ngi mer parce que ñu ngi invité woon Condé mais jour boobu Condé bu tax ñu repartir sur les mêmes bases s'il te plaît bu wax sax ñaari minutes Condé wuy ma Condé non mais de rek attends mais de mais Cheikh naa ci la rek wala une émission eh Condé s'il te plaît on recommence pas voilà c'est mais der ce gars soit day déglu wala mu génn émission. waaw yow yow yaay génn. waaw mais non non non non non Konde Konde c'est pas pour toi. attends attends non non du génn mais il va écouter déglu ma rek Konde tu vas écouter les gens. ku xamul mais lu tax mu naan ma day génn mais non ku xamul. non doo génn graaw wuy ma mais da ngay déglu ne nit yi duñu wax. bàyyi leen loolu ngeen nekkee waaw mais bàyyi leen loolu ngeen nekkee boo leen bu ñu leen invité ci plateau nit yi bëgg wax ngeen duñu wax. s'il te plaît démocratie waay gan du yéen bàyyi ko mu wax bàyyi ko mu wax. wax nga li ngay wax baykat yi mu wax. non non amul mais parce que day compliqué munoo nit ñaa ngi. mais munoo ko wax tamit ne du la tontu. s'il te plaît waaw léegi bàyyi naa ko mu wax. non non c'est même pas toi qui dois dire euh, bàyyi na oui. kon eh, tu vas le faire quand même. non dafa ndànk ñaanuñu la ñaanuñu la pour nga bàyyi ko mu wax. non allez c'est bon da nga koy bàyyi. day wax waaw mais non mais déglu jàmm déglu ko rek il faut arrêter kon déglu ko. Yérim tu peux tu peux répliquer dina déglu dina déglu il va écouter c'est bon on avance bon écoute je vais de très parce que nag aussi euh, euh, nekk di wax yenn wax yi man xaw ma dem li am solo mooy euh, ñun journaliste lañu mm. am na événement bu xewoon Guinée wax nañ ci li ñu xalaat jeex na ko c'est ça li ci des nag bon kuy ñëw di show di ñun yi impressionné wu ñu daal grand vraiment man gis naa lu ne ay yuuxoog yooyu du xam nga et puis démocratie mooy loolu nit ñi mën nañoo am point de vue yu wuute c'est normal nit ñi bokkuñu ñii dañoo gàtt ñi njool ñii am xam-xam ñii amuñu xam-xam donc ñëpp mënuñoo bokk même gisante. Mm. mais war nañoo mën a respecté. c'est ça tu comprends respect mooy lan mooy mën nga wax ak nit ki te doo ko agressé mën nga wax ak nit ki te doo ko saaga. mën nga wax ak nit ki voilà te doo ko te doo àgg ci personnalité wala dignité voilà. loolu la merci beaucoup merci allez Malal pour 2020 comme on dit année boo xam ni metti woon